Ya Allah Ya Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la Ramadan غدا يا حبيب يا حبيب رمضان mais jàmm ba. maa ngi si dama la soxla woon nag xam nga rek bi ma ci kër gi léegi yàggul. presque ma at. te koor mi ma fi fekk. am na yu bari yoo xamante ni yaa ngi ko gën a xam daal ci wàll sëñ bi mm-hmm. ndogg bi dañ koy defaree jus yeeg yooyu am na ñoo xam ne naturel lañ bëgg ñii nag dañuy bëgg di ci def yenn yi te na xam nga sëñ moom dafa naqarite rek mm-hmm. yaa ma a xam jikko mm-hmm. dama bëggoon nga expliquer ma rek daaje ndogg beeg yooyu <laughs> merci beaucoup si ñëw gi nga ñëw laaj ma noo war a taaje ndogg ak noo a def nga ma ko bañ a laaj te soo ma ko laajutin mooy loolu. moom ma war mënuma ci dara. parce que jeeg nga may jeeg. Mm-hmm. mais comme ñëw nga jox ma cër te toog ak man laaj ma. Mm-hmm. ma wax la li ma ci xam parce que kër gi moom bëri ay façon ku nekk a ngi fi. mais moom xam nga ne yow neexul deret. Mm-hmm. diir bi nga nekk ak moom yàggul mais xam nga ne neexul deret. kër gi moom wax dëgg yàlla heure la ni ndogu moom. ba pare affaire yu ëpp yi non non rek. naturel parce que bëgguma yéen ñaan ngeen am benn problème comme comme da nga ñëw laaj ma. ma wax la jikkoom te xam nga ne gis nga ni mu nekkee ci kër gi moom neexul deret mayu ñu dara. <laughs> sëñ bi de mu ngi noonu. mais xam naa daal lu mu gën a naturel rek gën a baax. Ah. waaw incha allah bu si am dara looy tiit man dinaa nekk sa ginnaaw mais lépp nag après sa loxo laa koy teg rek. sa ginnaaw yow tamit ma jiitu non non ma nekk ci sa ginnaaw di la jàppale di la wan affaire yi comme maa la fi. ah loolu nga di mais lépp teg naa ko ci sa loxo amul benn problème da ngaa baax rek franchement. na tey bu la neexoon tamit su ma ñëwee danga ma xatal baa nga bund xatal ma baa nga dàkk ma mais loolu lépp defuloo ko boobu ba tey dafa rafet dara ñaaw may ñaan yàlla tamit dara ba a ñaaw te dara lu ñaaw tamit duma ma sa am sama diggante man ak yow su ma si ñaawee day fekk mais non du ma sa am du ma sa am seen diggante yéen daal ba ko yàlla di tudd wax dëgg yàlla booboo mënuma ci dara loolu la yàlla lu mu lu def ci jàmm bi mënu ci dara kon boog da ngay daal di nangu ndogal rek di wax ne que tamit franchement dama kontaan ci yow trop nag kontaan naa ci yow boot nga ma rogganti nga ma yaa ngi may naxtaan bëggoo dara lu ma nakkari xataloo ma ci kër gi kon boog damay topp sa ginnaaw rek di la wax ne que nag kaddu bu rëy laa lay jox de kaddu waaw Ya koor bu ni muut te bu ci teg benn baat nga wax ma rek lépp loo bëgg ma jëndal ko yow de da ngaa bëgg kër gi yëngu allo ko yëngal. yow xamoon ne sama nijaay benn moom mbaay soxlawu ko ci kër gi. teggal loolu ci suuf bu mu ko dégg sax nag. sukkar ko dara ñu ko ci. yooyu yëpp bugg ko gisoo ma koy def defal ni ma def ma toog jàpp sama ñàmbur bu fi indi dara ba fi indi benn buur bi xam nga jikkoom te dafa naqari deret waa naka dërëm moo yàlla def na ko ci moom tegal ci suuf ah ma teg lépp ci suuf tegal ci suuf ah kon amul problème bugguma ben hmm. coow amul benn problème comme que sama aaw te yaa jiitu ci kër gi mhm. ba muy neex yow la woon muy naqari nga toog mhm. sàkket lépp ba tey yàlla def li muy def ma ñëw fekk si la kon boog lu ma diggal rek loolu laay def incha allah amul benn problème incha allah dinaa ci gën a waxtaan ak moom loolu moom tenket <laughs> ñëwaat déet waxuma la lool fii sax gis fi weer du yomb moom dafa man de service de sen laa ciy déglu weeru koor ba mu demee léegi matul fukki weer ak ñaar par six la lay ñëw léegi daa gàtt kii guma waaye lii la mu doon moom yéen xamoon ne yéen daa mel ne amu leen ni bakkan ak i bët weer wi mi ngi nii weer waa na ngi nii weer waa ngi nii dëng tuuti nii tuuti gisoo ko xoolal suuf ci kaw asamaan si service de sen lañ doon déglu rek adama weer waa ngi nii xoolal wax na dëgg de. wax na dëgg weer waa ah, ngi waaye bañ bañ ko weeru koor nag. moom kay nag tey wax na dëgg weer waa ngi nii moom. yan caama ko daan xool waaye tey kii moo ko gis yan caam yàlla ko yàlla yërëm. amiin weer wi ñëw na auzu billaahi mina seytaan weeru jàmm sa borom dimbali. taafeeroo weeru jàmm. yóbbu taxaw leen taxaw leen taxaw leen. weneen a ngi weneen weneen weer. lan weneen weer a ngi bu mag. weneen lan weneen lan. moo yéen dafa am mel ne amu leen bët même ma ñëw man. waaw kii daf ngeen trop moo doon weer na na ko woon na doon weeru boppam na ko woor moom. waaw waaw weer woowu nag man nga ko woor. waaw ah, war na koo woor wi nga gisaat fii woor ko ñun wii la ñu woor. yàlla na yàlla suturaal ci weer wii. taa feer weer dam